Adama Diouf wuli wuli bañ na laa ilaha illallah wuli Adama Diouf yaa ngi xeex wuli Adama Diouf wuli wuli Adama Diouf daan na ko Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli hee Adama Diouf daan na ko wuli daanu na jël bu ko bett wuli xeex na xeex bu metti waaye wuli xeex na xeex bu metti wuli xeex aroojo wuli aroojo wuli aroojo wuli aroojo wuli am quoi ma nag mais maa ngi sant maa ngi sant yàlla yàlla sunu borom laay sant ñëw naa entraîné na ñaan naa bëre naa yàlla may ko na ko na ko jig. noo def avantage boobu la ci la. non man tey sax ak moom parce que ñëpp dañu waxoon ne moom dafa bëri. moo tax bi ma songee rek naa. ma ma waaye merci beaucoup ma bëgg ñu contact ñu bëri mais mais bu laabu ji jeex la moo tax nga dóoraat ko. nga indi tey forme bi. sukat ko deelu ma xam nga ma yow itam nag damaa deelul Malick song bi laa deelul song bi. yow gars yi dañoo gaaw xoolal xoolal booy bi xam nga ko adressé ko Moussa Ndiaye. eh sa waay gis nga ñii boo ñëwee ak ren paa bi na. mais damay tegal seen bu baax man xoolal gars yi dañoo teel a bàyyi ku gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp ñu jàpp ci combat bi. Ah. nga féete ko suuf rek laa ni jeex na. loolu ci yaakaar ni Maxime Organe nee na boo mënee bëri ci xeex nee na ma waxoo ko ci combat bi nag combat bi nee ma ne su ma ñaar doom yéen su ma yoon daw ci yéen bi yéen conseil ma ne mais xoolal boo boo mënee bëri doo sonn ci xeex maa njëkk a door maa njëkk a songu waaw suma foor la non non xoolal du ma découragé bu ma duggee bu gënaat mën naa def lu ne ci àdduna man damaa mën a bëre boor kër Soulay 84 kilos laa doon def ko 2007 2008 di bëre ak 120 kilos yi boor kër Soulay Abdoulaye Ndour teraanga bi may defal Burkina Faso la ma gisee bu ma daale ma ne xooy naa fi yóbbu ma nekk ñu yóbbu ma Diouf Kaola moo demoon amuloo sax dafa xawoon feebar ma jëm 85 kilos mu woote fii gars ko def ko 100 kilos ñoom ma njëkk ñaa leen defante fii ma jëm gars yi ter leen ñoom ñëpp ma ñëwee. aéroport man dañuy yóbbu ko avion ba mu wàccee avion la jox jàppale ci combat bi mais kontaan naa si yëpp maa ngi kenn mu yow sama xarit nga ragal a féetoo wax nga nag sa poulet la mais man nga faral bu jéem a lakk-lakkal de waaw aw la